sëriñ Moussa Ka sëriñ Moussa Ka mi àdduna ci atum 1890 ci dëkk bu ñuy wax Ndiliki Ndiliki mi ngi ci suuf sii di Mbàkke Bawal sëriñ Moussa Ka doomu sëriñ Ousmane Ka la sëriñ Ka kaang fóori la woon bari na sax ci mag ñi ñu mu jàngal lii di alxuraanul karim waajuram wu jigéen moom Cheikh Moussa Ka moo tuddoon soxna ab Absatu Sekk sëriñ Moussa am na ñu mu bokkal kii di soxna satu Sekk ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna Penda Ka ak moom sëriñ Moussa Ka kon ñoom ñaar rek ñoo bokk kii di soxna satu Sekk waaye am nañ seen jeneen mag joo xam ne nii waajur wu góor rek lañ bokk ñu koy wax seex siidiyal muxtaar kuntuyu ka bi mu ganee àdduna la tombeek sëriñ Tuubaa seexul xaddim jóge ci dëkk boobu di mbàkke kajoor ñëwaatoon mbàkke bawar ngir di sanc si dëkk bu sell bi di Tuubaa ak daaru salaam ci diggante boobu nag daana ñëw lu bare bare bari ci dëkk bii di ndilliki ngir seet Ousmane Ka ci jamono jooju nag la doomam ji gane àdduna sëriñ Ousmane Ka di xamal ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ne ko soxna si am na gan waaye nag doom ju góor la dama bëgg nga wutal ko lii diw tur ci la ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim fa bi jëmm jooju tudde ko Seex Sidi Muxtaar Kuntiyu Ka di xamal kii di sëriñ Ousmane Ka di ko wax ne tudde naa ko sa sëriñ ba ndax jamono joojukat ñoom ay xaadar lañ woon ginnaaw ko lëre googu sëriñ Ousmane amoon ak ku baax seexul xaddiim teewul itam nag kii di seex musaa ka mbokkum ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim la ndax waajuroom wu jigéen wii kat di soxna satu sekk ak ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim ñoo bokk seen maam ja maam maaram moo tax soo demee ci xasida gii di xarnu bi seex musaa ka man ko fay leeral soxna absatu sekk soxna assu mbàkke mooy waajuroom wu jigéen soxna assu mbàkke maam du mbàkke mooy waajuram maam du mbàkke maam maaram mooy waajuram nga jëlaat kii di seex musaa ka di soxna wax sëriñ Ahmadou Seck Tafsir moom mooy waajuram sëriñ Ahmadou Seck Tafsir moomu ku ñuy wax soxna Seynabu Mbàkke mooy waajuram soxna Seynabu Mbàkke maam maaram nga jël ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim wax ne Maam Mor Anta Sali Mbàkke mooy waajuram Maam Mor Anta Sali Mbàkke maam Balla mooy waajuram maam Balla maam maaram mooy waajuram kon nii la bokkeek sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moom Seex Musaa Ka mu ganee àdduna nag ci atum 1890 ci dëkk boobu waajuram wu tedd wa nekkoon di ndilliki booba fekk na yoonu murit taxaw ba am juróom-ñaari at cheikh Moussa Ka bi matee dal lii di alxuraanul waa waajuram wu tedd wii di sëriñ Ousmane Ka moo ko jàngal lii di alxuraanul karim ak lii di xam-xam ba mu mokkal ko lool bu leen fàttali waa waajuram wu tedd wii di sëriñ Ousmane Ka kaang fóori la woon te taalub alxuraan bu mag a mag la yoroon ba ci sax kàngam yu bari ci yoon wii di yoonu lislaam rawatina ci réew mii di Sénégal jaar nañ foofu ñu bari ci tund wi sëriñ Moodu Ngañ Awa lañ ko gën waaye sëriñ Ousmane Ka la tudd bari na lool ñu mu jàngal alxuraan wala lii di xam-xam ci réew mi ñu ràññee ci maam Cheikh El Hadji si Sy bu Tiwaawoon sëriñ El Hadji Abdou Cissé bu jaamal sëriñ El Hadji Daraame bu Ndaraame sëriñ Omar Yaasin Dem ak ñeneen ak ñeneen ci biir réew mi jaar nañ ci ëttub sëriñ Moodu Ngañ awakami Kami wala sëriñ Ousmane Ka di waajuru Cheikh Moussa Ka Cheikh Moussa Ka ci ëtt boobu nag fa la jànge lii di alxuraanul karim ba mokkal ko ginnaaw bi nag waajuram yóbbu na ko ci dëkk bu ñuy wax ngéy ngéy ngir mu gën a wéyal lii di njàngum xam-xamam bi muy toll nag ci fukki booba sëriñ tuuba seexul xaddim mi ngi ci réew moom di gabon yoonu murit na wéy di màgg di taxaw sëriñ tuuba ñibbisi ci 1902 ci 1903 nag ginnaaw bu mu ñibbisee la fi am takk-takk nag ak administration nag bi fi nekkoon ñu jële ko nag ci réew mi ci bëccëgu fukki fan ak juróom-ñeent nag ci weeru gàmmu fas yéene ko yóbbu nag ci réew mii nag di gànnaar bi muy jógee nag daaru marnaan nag di wuy ji nag administration bi jaar na lii di ndilliki ngir seet si wala réew wa tàgguwaale na ko maa ngi dem lii di ab tukki bu ma tubaab bi yóbbu te xaw ma fan la keroog cheikh Moussa Ka la fekk ci buntu jàkka ja ñuy waajal lii di waxtu tàkkusaan bisub keroog itim la cheikh Moussa Ka njëkk a gis seexul xaddiim wala daal ci bis booba la ko seexul xaddiim fekk ci buntu jàkka ja ne ko damal wool ma sa waajur wa ginnaaw bu mu ko laajee noo tudd ba noppi mu di ko xamal ne Moussa la tudd seexul xaddiim na ko demal wool ma sa waajur wa sëriñ Ousmane Ka ginnaaw ba sëriñ Ousmane Ka ñëwee wuy si ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddiim seexul xaddiim wax ko ne dama am ab tukki bu ma war a dem te tubaab bi daf ma fa war a yóbbu te xaw ma fan la bisu kero sax la ko kii di sëriñ Ousmane Ka jébbal na kii di Cheikh Moussa Ka ngir mu jaayantee ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim Seexul Xadim di ko wax ne Moussa mi na wéyal am njàngam ndax kat damay dem ci tukki bi ba ñibbisi su ma demee ci tukki bi ba ñibbisi nag danaa jël ki ma jébbal bisub keroog sax kii di sëriñ Ousmane Ka mi waajuru Cheikh Moussa Ka jooy na fa jooy yu metti tàggu gi ko Seexul Xadim di tàggu di dem histoire bii ma leen wax ni Cheikh Moussa Ka mi ngi koy nettali ci jasaawu sàkkoor ñu teewloo samedi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmmu ca tàkkusaan bi seexul xaddim jaaree ndilliki di tàggu waajuru kii di Cheikh Moussa Ka sëriñ Ousmane Ka ngir dem ci tukki bi te xamul fan la jëm te bisub keroog sëriñ Ousmane Ka jooy fa jooy yu metti ñu teewlu waye ma wax la bis ba Bamba gontee daaru jëm dar bi wiy gànnaar ba naar yey waaru fukki fan ak juróom ñeneenti la bamba gonte daaru dalde saaw bii bis la soxna mus li doon jay màggal ba tax ma wéy ko yàlla naa ko àggal budul ko nag moom du ma wuy xibaar yi suli boor yaa yi war na bëri keroog la jénnee dox fa daarul man naan maam ceer na jokko fa su sii di gaawaan ba mu ñëwee borom ba mbàkke baari la dalde wolu naari waaye gànnaari Mahmadou Fall ak sayqu naa ñu dab ko kili ko toggoon ca gëlee ma muur ko ce te takkusaani suuf la romb sa baay fekk na dëkk ba béppaati saawaay baay njàmme ka ne fa buntu jàkka ja loolu saa baay dal di moom ne ko yaade saawaay fekku fa kenn ku du man ca jàkka ja mag du ndaw ni ñëpp daw ngir xare ba saa baay nuyoog moom dal jooy de bis bisi mën naa ko bi léegi ma dal de dellu kon nag ca jataay boobu ak yoon woowu na ci la cheikh musaaka Ka nekk lii di murit ci atum 1903 waaye Serigne Touba Seexul Xaddim dafa waxoon waajuróom wi na cheikh Moussa Ka am njàngam ba mu jóge ci tukki bi tukki bi nag mooy kon demu gànnaar gi Serigne Touba Seexul Xaddim def na gànnaar ci diirum ñeenti at yu teg ay weer bi Serigne Touba Seexul Xaddim di jóge gànnaar di ñëw ci yéen jolof ci 1907 ci yéen jolof nag la jaayante ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim xaddiim ci 1907 jàpp 1908 ca yéen googu di ca yéen jolof cheikh Moussa Ka fi la tàmbalee nag lii ñu tuddee ak muritoom cheikh Moussa Ka xam ne ne yoon wi liggéey rek moo ci mayee dara te moom bëggoon naa defub liggéeyam ba mu ràññeeku moo tax nag am na bis Sëriñ Tuubaa seexul xaddiim doon leen sàkketloo foofu ci ca yéen jolof moom cheikh Moussa Ka wax na ne bisub keroog wane na loo xam ne nii daal ak jomam ak ngorom moom moo tax mu def ko seexul xaddiim na xooloon na leen bu baax bisub ko ndànk loolee na ko seexul xaddiim waxoon muy musaa ndànk ja aalu loo woon na ko ba tax mu meloon ne lu xam ba tëdd fa nelaw seexul xaddiim moo jóg fam nekk ñëw laal lii di dënn ba laal googe mu laal dënnam ba mu yeewu moom seexul xaddiim defoon na aal ci seex musaa ka ba sax mën nañu wax ni fii turu seex musaa ka egg seex musaa ka jot na ne laal googe seexul xaddiim laaloon dënnam ne ko musaa ndànk mooy li ko waral lii moom seex musaa ka bari na mag ñum ko nettali te njaboot gi ñu xoolal la lii ma la wax ci jëf jooju nag la cheikh Moussa Ka mele ne lu raw ñépp ci wàllu mbind ak ràññeeku lool ci yoon wi ba tax nag lu ne def na ko bu dul woon ak Moussa Ka conférencier yu bari seenu làmmiñ dam mu nekk murit bu ràññeeku murit bu fis lool ci ëttub ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddim ba ni mu jotee ngërëmam delluwaat ci dëkku cosaanu waa juróom woow di ndilliki ndax kat foofu la ganee àdduna am na fa sax li ñu tudde ay daara lii di ay dëkkitim kii di cheikh Moussa Ka sanc Touba Manna ñu gën koo xam ci mbënd dëkk bu ñuy wax Lumbel Sayar itam amoon na fa lii di ay daara dëkk bu ñuy wax Baak Samba Joor amoon na fa lii di ay daara dëkk boobu mu cosaanoo di ndilli kii itam amoon na fa ay daara ñuy wax jàmba ngonaan itam amoon na fa lii di ay daara moom Cheikh Moussa Ka ci daara yooyu ak dëkk boobu itam yoroon na fa ay dongo yu muritu mu nekk fay liggéey di jàng ak di jàngale di yar ak di tarbiya comme nu yoonu murit baaxoo di def ci dëkk yooyu itam la ëppoon lu muy nekk ci dundam ba ni ni ko sëriñ Touba Cheikh Mamadou Fadal ci li ci dëkk bu sell bii di Touba ci 1963 ginnaaw buñ nattee dëkk bi ci këram googu nekk ci Touba 28 ci kër googu sax la génne àdduna mu jël nag yoon woo xam ni ci yoonu murit ñi ko ci daa def bariwul ndax ginnaaw sëriñ Moor Jaara Mbay sëriñ Ababakar Jaxate sëriñ Moor Kayre te wuute nañ sax ñoom nu ñuy waye ndax ñeekat dañuy tagg ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim ak lenn ci ay histoire kii nag biographie lay jël ba tax na sax am na ay way yum leen jagleel di ñaan ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ñoo ñee loolu ñu man moom mu man ko kon ku nangu woon dogalub suñ boroom la ndax bari na ay wayam yu muy ñaan ci barkeb ñooñu mu jël yoonu way yàgg ak nag denc lii di istuwaaru yoon murit kon historien lañ ko mënoon a jàppe moom Cheikh Moussa Ka ci yoon wi ndax kat wax naa leen ne lu baree bari ci yoon wi tey jii buñ ko xamee moom lañ koy sante ndax moo wax fa mu xewee naka la ak fan la histoire yu baree bari ci yoonu murit bind na ko mag ñu baree tim ci yoonu murit tàgg na leen xew-xew yu baree itim ci lislaam ji wala ci yonent yi ak saxaaba yi ak xeex yi itim bind na ko ku baax kii di Sëriñ Tubaa Seexul Xadiim itim tàgg na ko tuubaay tim way na ko kon nag ñu mën a ràññee ci jëfi Cheikh Moussa Ka lu takkoo takku ndax way na lii di istuwaaru yonent yi way na tukkib Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ci géej gi ci li ko dale ci atum 1895 ba 1902 ñu koy wax jasaawu sàkkooru géej gi way na itam lii di ñibbisi géej gi fu Seexul Xaddim jaar ba demaat ci réew mii di gànnaar ñu koy wax jasaawu sàkkooru jéeri ji mooy ci ba lii di ci yéen jolof itam te Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim nekkoon fa 1907 ba 1912 itim jaar jaaru ca yéen jolof ba ni sëriñ tubaa seexul xaddim demee njaaree mitim way na ko nekk gi sëriñ tubaa seexul xaddim nekkoon njaaree mitim way na ko diggante sëriñ tubaa seexul xaddim ak lii di tubaab bi itim way na ko mbooleem lu sëriñ tubaa seexul xaddim seexal cheikh moussa ka tënk na ko ci benn téere ngir way leen ca doomu sëriñ tubaa seexul xaddim itim way na leen li ko dale ci cheikh mu moustapha sëriñ fàllu ba ci ñu takkoo takku ci yoon wi mboolem njabooti sëriñ tuuba seexul xaddiim yi boole na leen ci wenn way moo xam doom bu góor doom bu jigéen ba ci waa barsàq ñi mu ñu jigéen ñi nekkoon nag sëriñ tuuba seexul xaddiim ak rakki sëriñ tuuba seexul xaddiim yi ak cheikh yi ñoo ñëpp tënk na leen ci gennu téere di leen ñaanaka ñaanal soxna jaaratullaahi miy waajuru sëriñ tuuba seexul xaddiim itam way na ko lii di poroxaan maam astawaalo ak ñeneen ak ñeneen ci mag ñi seexi sëriñ tuuba seexul xaddiim ci bare bari way na leen maam cheikh sëriñ ndaam abdourahmaan lo maam cheikh ibrahima fall lamp sëriñ moor soxna mii doomu mammoor jaara mbàkke sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke boroom xabaan cheikh ma sàmba mbàkke muy caatu mammoor anta sali mbàkke dëkk bu sell bii di tuubaa nu fi nit war a nekk ak dundiin wi way na xasida guñ tudde njuuj njaaj way na lii di wàllu économie ab murit saadeex tim nu mu war mel way na ko jumaay tuubaa jiitim jagleel na ko lii di ay way sëriñ abdu jëng bàlla faali nekkoon doomu baax a baax ci ay way kon cheikh Moussa Ka waykat la woon moom jàmbaaru xaadim rasul bi ginnaaw bu sëriñ Tuuba seexul xaadim génnee àdduna ci atum 1927 ci njaareem cheikh Moussa Ka delluwaatoon na njaareem daloon kër sëriñ Mor Mbay Siise ngir di toppaat fukki at ak juróom yi seexul xaadim def njaareem ab jeexantalam lool itam def na ci aqasida jagleel ko bis boobu wala jagleel ko fukki at ak juróom yooyu way na cheikh Ibrahima Mbàkke ibnu sëriñ Tuuba seexul xaadim mbàkke bintu seexul xaddim itim way na ko way na itim lii di xarnu bi nga xam ne ni ay jafe-jafe la lu yu àdduna bi amoon rawatina réew mi di Sénégal tarixa bi mu bokk itim muccul woon ca coow laak jafe-jafe yooyu amoon ci crise su 29 bi crise boobu ni mu jaaxale woon àdduna bi itim ni la jaaxale woon lii di yoon wii di yoonu murita ba tax na mag mu ne waaru woon nga ci ci lan mooy jafe-jafe yi demu xaadim rasool gi la wala àdduna bi rek solee saw dàll seeti sa moroom ci lañ demee nag ci sëriñ daam abduraxmaan loo ngir jort ne moom mu leen gën a jege sëriñ tuuba seexul xaddiim ci mag ñi fi nekkoon sëriñ daam abduraxmaan loo di leen wax ne seex musaa ka day jort naa ne moom moo ñu gën a jege nag jamono ji ku baax ki ndax kat bi ñu ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim di dëddu bokk na ci kàddu yi mujjee wax de ne lim waroon a wax wax na ko lim waroon a def def na ko léegi kat musaa ka la ñuy bàyyeel ndax léegi moom mooy werekaanam kon mooy ku nu gën jege kii di ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ndax moom la ku baax ki kat ne léegi duutul wax moom mooy wax kon nag nañ ko seeti mu mën a wax ak ki nga xam ne nii moo ko bàyyee kàddoom sëriñ Daam loo Lo solowu dàllam ñëw ba ci Cheikh Moussa Ka di ko wax ne mbooleem ñu ñu séqal Xaadim Rasuul te ñu nekk say jëwriñ ci yoon wi ak njabootu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim kat ñëwoon nañ ci man ngir ma wax ak ku baax ki waaye yëg nañ ne yow la ku baax ki waxoon ne yow lay réew mi pitim jaaxle nañ ci bekkoor bi kon nag waxal la ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo tax ca tàmbale way wa Cheikh Moussa Ka ma ngay wax ne sëriñ bi ñoo ngi lay deeti ñaan faqir dafay nangoo dagaan nangul ñu nag lépp ñu la ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi ma ngi cay teg ne nag ñoo ngi dagaan ci mustapha mi nekk diggante marwata ak safa ak aqi mustapha mii fi nekk muy cheikh munu mustapha mi nga xam ne jamono jooju moom moo toog xalifa général des mourides mi yàlla jébbal xarnu bi waaw booba nag cheikh munu mustapha moo toog toogaayu xaadim rasul di xalifa général des murit moo tax mu daane la loolu way wa mu cay teg ne ko ak ak i rakkam yi mu am ak i baayam ak cheikh yi nga xam ne ni ñoom ñoo wër xarnu bi ndax kat booba li ma leen ko waxee rek mag ñi kenn ku ne jaaxle nga te yaakaar nga ne saafara bii daal sa moroom moo ko war a def te mag ñi kenn ku ne wër nga sa moroom bam teer si ci moom moo tax nag muy wax seexul xaddiim ne ko lii ma lay waaj a wax kat murit yépp ñoom ñoo la ko wax moo tax Cheikh Moussa Ka di ko wax ne mbàkke dangay boroomu njaboot teg sa njaboot tawataloof ñu def man Cheikh Moussa Ka làppatoo waa xarnu bi waaw mooy li ma leen wax rek ci seet si gu ko mag ñi seet ngir kat déggoon nañ ne ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim na nee na léegi Musaa Ka la leen di bàyyeel te kon mag ñi jaaxle nañ moo tax mu ne ko ñu def ma ab entre paret ngir ma làppatoo leen ndax diggante njàmbatu mag ñi ak seexul xaddiim seex Musaa Ka mooy ki koy jottali moo tax mag ñi kenn du ñoom xoolal kenn ku ne ni nga doyloo sa moroom ngir seexul xaddiim ma cay teg ne ma Moussa tawatal te bu ñu woo ndax saw làmmiñ mooy waw xarnu bi kon wér ne na nag lii Cheikh Moussa Ka wax murit yépp ñoo ko ko waxloo ñu teewlu way yi sax ni ko Cheikh Moussa Ka waye ci xarnu bi ngir dégtal leen ko sëriñ bi noongu deeti ñaan faqir dafay nangoo dagaan nangul nu lépp la ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi noongu dagaan ci Moustapha nekk marwataak safa ak àqi am dil Mustapha mi yàlla jébbal xarnu bi ak àqi mboolem ay rakam ak àqi seen baay ñu am ak àqi seexi bàmbaam sarax nu naatal xarnu bi mboolem murid yëpp ngi tuub dire ci bàkkaar ni juub balu nu bay bay du sarax nu naatal xarnu bi mbàkke da baraami boot tasan njabaat tawat gi laat ñu def maak antal pareet may làpp tooga xarnu bi ma maqaamam di woo waaye murid yi ñoo woo na tawatal te woo caw lammiñey woo xarnu bi tey jii wax bane tareet ngir yaa def antal pareet yaa fa bi xam-xam ne ci sama xel ci xarnu bi ma tàngam lu ci ñaan ngir bon tey ku kañaan murid yëpp la ko ñaan dekkal xarnu bi jooy perantal lanu jooy soon fabu leenu ne wooy ku nu yafal bandefe kooy mu dellu naatal xarnu bi ji yaay te nu anguraam ku ñàkk yaay dey namp maam buural te boot nu ngara daam rokku ni mboolem xarnu bi fabal sa doomi yëpp boot ñoomin ñu boot seenu njoboot ku mun ta boot nga jox ko mboo ndax yàlla naatal xarnu bi tafam murid yi suturaal mottili jàkka ji ñu naal foo tolli dolli seen alal ndax yàlla naatal xarnu bi xasida gii di xarnu bi murit bu ne na xam ne sab sëriñ moo ko bind ndax kat mag mu ne wax nga lu tax ñu bind lii di xarnu bi moo tax bu ngeen dégloo bu baax wayi te settantal ko da nga dégg Seex Musaa Ka ne ko man ñaanuma la ko waaye murit yépp ñoo la ko ñaan li waral rek Seex Musaa Ka bind ko nag waxaat nañ leen ko dellu leen ko waxaat mag ñi dañoo xamoon ne daal Seexul Xadiim neewoon na Seex Musaa Ka muy muy wéy di wax ak njaboot gi léegi ndax moom li mu waroon a wax wax na ko li mu waroon a def def na ko te loola mag ñi xamoon nañ ko te doyloo woon nañ seexul xaddim moo tax ci crise 28 29 bi ñu seeti ko ngir mu yor seen kàddu ci seexul xaddim kon kàddu murit yépp nag ci jafe-jafe yu ñu amoon ci 1928 moom la Cheikh Moussa Ka tënk loolu mooy bi ñu doon jox seexul xaddim bu doon 4 avril daal ñu ne lii mooy bi ñu jox président de la république ci seexul xaddiim ci crise bi amoon 1928 29 jërëjëf Cheikh Moussa Ka yàlla na la yàlla continuer fay nangu googu mu nangu woon bind ci yoon wi nangu woon tàgg lii di mag ñi ba lépp lu mu gis bind ko ci këyit ngir denc bu ëllëgee génération bii ñëw man caa sukkandiku doomu seexul xaddiim bii ñuy wax soxna may Maymunatu Mbàkke bintu seexul xaddiim di soxna may munatu Mbàkke Kubra moom itam santoon na bu baax a baax kii di Cheikh Moussa Ka ci jëf ji muy def di ko wax baree bari ñu lay ŋàññi waaye na la leer ne daal sëriñ tuuba seexul xaddiim dana la fay ndax sax nit soo dëkkoon di ko ñaan te yurut dara bu yàggee sax jomam dana tax mu fay la te ki ngay liggéeyal am na fay am na manta dana la fay ñi lay ŋàññi nag dañ laa xamul waaye dana la leer ne yow daal raw nga leen ba faw ñu teewlu way yi ko soxna may Maymunatu Mbàkke bintu seexul xaddiim way ngir di ko ñaax ci liggéey bu am solo bi Seex musa koy def diglu ko kon nga jiitu mboolem kànga sëriñ bi sopp na la fam na sab xol defar ko yor ko te jubal na sam xel baaraka fii kallahu yal na yàlla yokk la ay ngëneel te ful la fal la ci daraja yi ngën ci mbindeef ak mboolem ñu ngam li ngay taalif ñu yàgg kooliñ te lii ma lay wax képp xamal ma ko digal ci yow nde man firuma baa ñañ ci tagg Bamba yee nga taxal kookale muy sa noon ba yow jeex nga takk ci sëriñ bu mag bi ba too ka too dawal machine bi machine nga rekk nag yoroo sa bopp teex Bamba moo la yor wéer bul dëpp te ku la man di ŋaññi nag muy mbokk mbaa mu di jàmbur dañ ko jiitu fokk ngir say ko Bamba ba mu jóg tee tagg ngën gi mbindeef mësu la toog ba àgg yal na nu yàlla ci barkeem te jox nu barke nekkul lu ñëpp di nu yéem musula toog fenn dadaa dox ni ngelaw ngir topp yoon nen ba xolam mus la nelaw yawit nga jóg tee way ko kon nag war ngaa te ndam lu aw ŋàññi te yëg ni raw ngaa ka gën a bon sax boo saxoon ci way ko te bañ a dàcc faw moos nga jot ko yow nag ci gën ñëpp baroo am xiir la ci way ko góor góorlu ne leem fal la kon cheikh Moussa Ka wëlle réew soxna Mbàkke bintu seexul xadim la ba lii di ay way sax ñoom ñaar séq nañ ko yu bare bare bari waaye wow dañ leen ko ci jukkiloon rek ngir ñaax gum ko doon ñaax moom soxna may Maymunatu Mbàkke bintu seexul xadim ngir cheikh Moussa gën a góor góorlu doomu seexul xadim bi ñuy wax cheikh Ibrahima Mbàkke tim ku amoon kóllëre la ak kii di cheikh Moussa ba tax na bi mu tëddee lii di sax cheikh Moussa Ka nekk ab bëkk néegam cheikh Moussa Ka bu masaa ñëw Touba laataa muy am kër gi mu am ci Touba 28 itim kër cheikh Ibrahima Mbacke ibnu Serigne Touba Cheikhul Khadim foofa la daa dal kon ay wóllëre moom ñoom ñaar moom lañ woon rawatina nag mboolem njabootug Serigne Touba seexul Khadim gi ndax bi cheikh Modou Moustapha Mbacke di taxawal bis bii di màggalug Daaru Xuddoos bindoon na lettre cheikh Moussa ngir di ko ko yëgal cheikh Mamadul Fadal Mbacke moo ko dël lii di Touba cheikh ay wëllëreem lañ woon rawatina lii di cheikh yi sëriñ tuuba seexul xaddiim yi kon cheikh Moussa Ka amul woon noon ci yoon wi wala bëri liwu ko woon doomu sëriñ tuuba seexul xaddiim yu jigéen yi itam amoon nag ñoom lii di kóllëre ndax soxna assu mbàkke mbàkke kajoor sax ak taawam moom la ko duppe moom cheikh Moussa Ka cheikh Moussa Ka nag kon ci loolu la sax toppit nag ci ginnaaw doomu sëriñ tuuba seexul xaddiim yi di leen xoole xaddim rasuul lu waaye def ci yoon wi mu way ko ci atum 1927 bi sëriñ tuuba seexul xaddiim génn génnee àdduna moom dafa jël léppam nag jébbal ko taawu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di cheikh mamadul mustapha mbàkke di ko xoole xaadimu rasuul bépp mag mu jaayante kii di cheikh mamadul mustapha mbàkke cheikh moussa ka way na la ngir ñaax la ci ngóora googu nga def ngir xam ne kat yoon wi cheikh mamadul mustapha mooy bopp ba ginnaaw cheikh mamadul mustapha mbàkke ci atu 1945 fam na léppam nag jébbal ñaareelu xalifa sëriñ tubaa seexul xaddim ba di cheikh mamadul faadal mbàkke kii di mu dul faadal mbàkke sax moo ko dël tuuba ci atu 1963 muy kër cheikh moussa ka gi nekk ci tuuba 28 ngir di ko wax ne ñibbisil ci dëkkut ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim fa nga ñëw jege si ma ci sama wet kon lii moo indi cheikh moussa ka ci tuuba ci atu 1963 ci ndigalul ñaareelu xalifa sëriñ tuuba seexul xaddiim bi fi nekkoon di cheikh mohamadul faadal mbàkke ci xilaaf ak mu dul faadal mbàkke sax la génne lii di àdduna moom cheikh moussa doon dundam gépp ci way ak tagg gaa yu baax yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim la ko jëmale ak lenn ci ay histoire yoo xam ne xew na ci yoon wi ak lenn ci mag ñi kan mooy mag ñooñu moom cheikh moussa ka cheikh moussa ka mi ngi génn àdduna ci atum 1966 ci feebar bu ko tëral bisub ajjuma fukki fan ñeent ci weer wi di weeru korite ci atum 1385 ci gàddaay gi bisub ajjuma fukki fan ñeent ci weer wi di weeru korite ci atum 1385 ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 4 février 1966 vendredi 4 février 1966 ci kër gi ko cheikh mamadul faadal mbàkke daloon ci Touba 28 cheikh mamadul faadal booba moo nekk xalifa général des mourides ginnaaw bu mu yëgee ne liggéeykatu sëriñ Touba ba cheikh Moussa Ka génn na lii di àdduna la waxoon ci rajo yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci jumaa ji ne bépp murit na ñëw gunge kii di cheikh ci kërug dëggu ga wala ci kërug dëgg ga ngir ñu man koo jébbal boroomam mu seedeel ko itam lu am solo wax ne jàmbaar tëdd na liggéeykatu xaadim rasool ba dem na yoonu murit gépp nag xam na seen bindkat ba ka daa nettali istuwaar ya dem na cheikh abdou xaadir mbàkke moo ko jullee ñu denc cheikh moussa ka ci armeer yu mag yi ay xalifaam nag nii la tëdde moom cheikh moussa ka moo moodu kabir ka moo ko wutu ci atu 1966 ba ci at mii di l'an 2006 ba nëgëri nag ku wax sëriñ du Ka ibnu cheikh Moussa Ka moo fi nekk toog nag ñaareelu xalifa waa waajuram di cheikh Moussa Ka cheikh Moussa Ka nag am na bis buñ koy fàttaliku ci li ñu tudde ak màggal moom ci boppam sax moo ko daa taxawalal boppam am na ab taalibeem buñ doon wax sëriñ Ibrahima Ba bu mu ko joxoon bis bi moo tombeeg muy ñaar fukki fan ak ñeent jàpp guddi ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi di weeru digg bis boobu ca wa yonent yàlla Moussa jote woon téere xam ne ni ñoom la ko dénkoon màggal nañ ko ay ati at ginnaaw nag bu mu fi bàyyi ko ba ci atum 1988 xalifaam bii di sëriñ Modou Kabir Ka demoon seeti kii di cheikh Abdoul Ahad Mbacke di ko wax ne bis lañ bëgg bu ñuy taxawal kii di cheikh Moussa Ka cheikh Abdoul Ahad leen wax ne cheikh Moussa Ka kay am na bisub boppam ndax jàpp leen bëccëgu ñaar fukki fan ak ñeent jàpp guddi ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi di weeru digg ndax bis boobu ka fañ ko tudd di turandoom wa ca la jote woon téere bi ko suñ boroom joxoon ngir wan ko ñim ko dénkoon bis booba mooy bisu Cheikh Moussa Ka boobaak léegi nag njaboot yi ñu ngi jàpp bëccëgu ñaar fukki fan ak ñeent jàpp guddi ñaar fukki fan ak juróom ci weer wii di weeru digg ngir di ci fàttaliku seen jàmbaar ja seen waajur wa Cheikh Moussa Ka kon lii mooy màggalu Cheikh Moussa Ka ñuy ñaan ci darajay xaadim rasool ja na ñu ko yàlla fayal xalifaam bii fi nekk tim di sëriñ Modou Ka yàlla na ko fi suñu boroom yàggal ak mbooleem njabootu Cheikh Moussa Ka gépp moo xam yu góor yi wala yu jigéen yi yàlla nañ suñ borom sàmm te aar leen lii di soppe yeeg turandoo yi itam naka noonu ak mbooleem taalibe yi lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ borom saafara ci dara jay Cheikh Moussa Ka amin ay Cheikh